tay ñu ngi fi ñëwoon euh, ñëw fii 16 bi si Ablaye Dieye euh, au nom de tous les étudiants yi nga xam ñooy étudiants thiessois yi nga xam ñoo nekk fii si Sénégal di ko remercier infiniment pourquoi parce que tout le monde sait que actuellement l'heure est grâce pour les étudiants thiessois et dañ ko exposé suñu problème war a dellu amuñu ay dëkkuwaay pour université yëpp di Sine Saloum di UGB di Dakar di yeneen université Bambey ñëpp exposé que c'est un problème nous sensible à la situation avons jàppale une enveloppe de 2 millions pour les étudiants pour les étudiants yi nga xam Sénégal Nous remercions ñu infiniment au nom de tous les étudiants yi nga xam étudiants qui sont au Sénégal nous avons koy santé di ko gërëm si sensibilité nous avons am ak yërmande bu étudiants yi ba jàppale leen Nous Nous ñu beaucoup. ko siy remercier journée de lancement. Euh, reboisement Nous avons une ni intention pour planter 500 arbres dans la commune de Thiès donc malgré la pluie loolu sax dañ koy santé yalla parce que ngay jëmbat eh, yalla la wacc ndoxam donc cela veut dire que ni li def donc euh, li bokku euh, ci initiative bi nga la jeunesse de Ziguinchor nous ñoko initié muy un programme pour les euh, vacances utiles pour Sigi. C'est ay acte de citoyenneté C'est un engagement un dévouement ñëw nañ dem dem procéder à la plantation des arbres. du yem fii nag dinañ ko def si tous les trois communes de Thiès parce que am nañ fa ay militants am nañ fa ay sympathisants ñu ngi leen di inciter. di leen wax ni nañu continuer di def ay activités yoo xamante ne sont des activités utiles moo tax tey ñun suñu euh, slogan ñu wax vu mooy des vacances utiles. donc tey si contexte bi ñu nekk amul benn activité boo xamante ni war nañ ko def lu dul rek xeex li nga xamante ni moo fi nekk mooy eh, la Covid 19. di di wane ni nii rek police ak gendarmerie ak sapeur dañ fay nekkal askan wi te tey ku gis ñoom ni ñuy doxalee xam ne ils sont en phase avec la population moo tax tey ñu ñu nekkat dañu bëgg a wane institution de force et de sécurité nekkat ñu nag ñoom benn lañ moo tax tey bi ñu jógee sunu lancement bi devant le commissariat du premier arrondissement mais aussi devant la caserne euh, sapeur pompiers de Thiès. Thiès la ñu teg au cœur de nos préoccupations donc bu nous gisee tey suñu étudiants yi wala dem nekk ci reprise am ay jafe-jafe te jafé jafe-jafe yooyu mënoon na baña a man parce que amna ay autorités yu ñu fi teg yoo xamante ne répondre à leurs préoccupations mais ñun le mouvement Siggi Jotna ñor moy Thiès dans sa globalité donc képp ko xamante ni doomu Thiès nga rek ñew nga solliciter jafé jafé dañ lay accompagner surtout nak euh, couche bi nga xamante dafa am importance moy les étudiants c'est l'avenir de demain dañ leen war accompagner vraiment teg ces conditions yu am solo du meuna am ay réussite donc raison pour laquelle tay da leen jox ben soutien bo xamanteni c'est pour les accompagner pour une bonne rentrée.